Lass Ndiaye Thiatou Aidara doomu Joal ak doomu Diofior di waa Diofior di waa Joal Doudou Sané attaqué na ko Lass def déplacement latéral cey bi combat Doudou Sané Lass bongima aso ndewte genoox ndaake anum ta babu ndaal ɓe ngena pam bongim ka bo saax le nanin ordinateur ordinateur Paul Menthe ordinateur Paul Menthe orden koy diri Doudou Sané ordinateur Paul Menthe jël amagul de Doudou Sané El Hadj Ndiaye El jël avertissement Doudou Sané Elhadj Ndiaye Modou Pouye Modou Pouye daan na Ordinateur daan na Modou Dib ka ama Fandora Modou Pouye a maafa a maana Ordinateur a maafa mene Ordinateur a maafa Paul Menthe Elhadj Ndiaye jàpp na si téere yi waaye dafa yónnee na prip ok nee na bu na ko Doudou Sané na ko benn ramas tëdd si kawam Doudou jógal lamb ji neex na ndax dafa am ay champion yoo xam ne li ñu def ci lamb day na ku mel ni waaw fair play yi ku mel ni Paul Mouride ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Doudou Sané am plaqué Alas Ndiaye plaqué a route route du du du du du moo dee gunjang Doudou Sané am plaqué Alas Ndiaye moo jot toog Yarı final. Yarı final. Tamam size yarı final. இந்த உண்மையில் போற அளவுல புடிச்சு போலாது அப்ப பக்கம் சமீஷ் தொகை அஞ்சனை பக்கம் அஞ்சு

Doudou Sané Sélé Mel arbitre ba sifflé na de combat bi moo indi coow lu rëy keroog candangaan ñi naan def du noonu te daje fii ci ñanin keroog Doudou Sané moo nekkoon zone am Ndangaan Sam arrondissement Fimela soriwul ak Diofior tey Sélé Mélé moo nekk fii ci ñanin soriwul ak campement Doudou Sané koy potam potamee l'expérience de Sélé passe à la jeunesse de Doudou Sané Doudou Sané jàpp na Sélé sol ko na bloqué ko Doudou plaqué na ko daan na ko nee na daan na ko kaat leer na de on m'a validé. L'homme de toutes les générations. Maman Diga est l'homme de toutes les générations. Maman Diga est l'homme de toutes les générations. Maman Diga est l'homme Yéen a pokal la door ci suuf jël amagul la Ndiaye Pakala la mais El war na ko ndombu de Pakala génn na ca ba tey El Hadj jàpp na nga mu waraat na ko ndombu de eh rëpp nañ trois appuis Thank Dan na ko El Hadj ya, Ndiaye na Pakala bu na ordinateur Ngagne Sène su ordinateur mosagu koo dan Ngagne Dan moo ko daan gaaje Serif genné ko ngeeñan dan ko ndangan ñetti yoon lañ bëré waaw te ñu daje fii ci Nianing pour la quatrième fois ñu xool ndax ngañ day confirmer pour 4-0 wala ordinateur day kase dynamique victoire ngañ yi mu doon 3-1 dans quelques secondes wala dans quelques minutes lépp dina leer demi-finale la ndeysaan di yëg ziar ñi seetaan di leen di bëggee ndeysaan sama tonton sama nijaay yi borom baax. l'adjudant en chef le gendarme Simbo Diouf ndeysaan maa lay ziar Simbo wala tonton Etienne comme niñ koy waxee maa ngi koy bëggee bu baax a baax sama nijaay di ko jaajëfal nee na ma Lamine di courage li ngeen di def nice na ñu leen di seetaan daal di ma ñaanal ma wuyu amin ay ca l'adjudant en chef Simbo Diouf bëgg naa la le gendarme ngay seen bu njaga ñaaw di bëgg wa njaga ñaaw Ngor Diop Brise ma ngi lay siyaar Ablaye Latlet ma ngi lay de waye fay ma lay borom tambakunda le directeur d'école di bëggee ndeysaan di jak borom ce chauffeur horaire bi supporter ordinateur Ibrahima Diouf eh ca France ba koy Lamine Sène bu ordinateur sama dooma ah. fàttewuma la de Arfan Faye doomu ko ba ngoy séeréer bi le grand navigateur supporter ordi Arfan Faye wala Paul maa ngi lay siyaar eh, eh. ordinateur ngañ seen ordinateur jël na loxo bi teg ko ci tànk bi ndax ngañ fooram yëpp mooy cee tànk ordi taxawul mu ngi def ay déplacement latéral ordinateur ngañ sen ordinateur ngañ sen ngañ laal na tànk bi mais jàpp ko ngañ seen jël la tànk ordi ordi génn na ko ak naax ordi wetu na ko ordinateur tegal 16 wala mboot ngañ mbaa ding si génn ngañ mbaa ding si génn ngañ mbaa ding si génn dégal sees wala mboot ordinateur daan na ngañ seen ordinateur na ko